dans beneen document heureusement ba six mois la ñu la la ñu toog mhm. euh, des experts sénégalais accompagné d'un cabinet mm -hmm. euh, le cabinet performance groupe bu Victor Ndiaye di un Sénégal aussi donc ñu voilà ñu mhm. ñu ñu tëgg projet bu ñu mel ñoo présente ñu ko mhm. donc euh, dañuy am boo ko gisee c'est un projet boo xamante ni euh, c'est bien calculé dans le temps ouais. euh, c'est c'est c'est te c'est un projet ambitieux boo xam ne man jàpp naa ne bu fekkente ni ni ñu ko tëggee nii toppee nañ ko mais aussi y a un un défi muy lan parce que li ëpp solo. Mhm. ci mbir mi mooy fexe convaincre. waaw les sénégalais. d'accord c'est pour les sénégalais. Mhm. donc euh, mobiliser mobiliser euh, la ressource humaine. Mhm. autour du projet bañ jël ko def ko seen mbir. mën a accompagner le gouvernement ci li ñu mën a amee réussite ci li nga xam ne tëgg nañ ko. et je pense que ne globalement dans la forme. bu mhm. fekkente ne loolu am na. Mhm. c' est un projet ambitieux boo xam ne boo gisee les économistes yi nga xam ne aussi après le projet dégg nga ñu génn kàddu yi nga xam ne yëgit nañ ko ñoom ñu seen xam-xam gën a màcc ci ci wàllu surtout sur le plan économique yooyu. Mhm. donc day day gën a yokk yaakaar bi ñu ci amoon. Euh, on espère bien que euh, dina nekk un projet boo xam ne dina def dina def résultat dans la forme. peut-être euh, après on, on reviendra un petit très bien Babacar pour les développements yi nga xamante ne euh, jot nga ko def damay ñëw si Bachir laataa may ñëw tamit les axes yi nga xamante ne suñu njiitum réew euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay jot na ko développé Bachir. Mhm. Euh, comme ni ko Babacar waxee gis nañu tamit le premier ministre moom nekk dans la continuité am na ay kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko sénégalais yi doon xaarandi projet bi boobu ba tey. présenté nañ ko askan wi tey jii yow ban jàngat nga siy dem alors Mamour comme ni ko Babacar waxee ah. Uh-huh. Sénégal. projet am fii je pense que nekkul une première parce que mhm. buñ xoolee ci régime yu passé mhm. yàgg nañ fa gis ay projet ñu koy digtal askan wi mhm. mais liñ ci doon xaar mooy mu am benn dénouement maanaam jeexantal boo xam ne am na solo indi développement ci dëkk bi parce que Sénégal depuis ay jafe-jafe dafa am en réalité askan bi on arrive à peine à bon di souvenir ses besoins kenn ku nekk ci ñun tey Ousmane Sonko depuis 2014 ba mu ba léegi dafa am benn di wax rek ne bu leen ñu dénkee nañ doxale nii ak nii tey yàlla def nañ jox nañ leen nguur léegi wax amatul mooy présenté askanu benn a projet bi euh, taxaw neen am ci explication révélation yu am solo leen lii mooy mbir mi Sénégal yëpp gis ko malgré sa opposition ba tey am nañu taxaw ni projet bi dañ ko plagiat PSE ak lu ni mel mais je pense que ni kenn ku nekk boo demee nga lire nga xool mmh. je pense que ni c'est diamétralement différent d'abord avec le PSE. d'accord tey bu xoolee lii li ko tax a jóg mooy lan mooy am lu ñu duppee soppi réew mi indi benn souveraineté nationale. d'accord bu ñu xoolee ba tey projet bi dafa am lu ñu duppee bu ko faram-fàccee ci lu gàtt rek parce que je pense que jëruñu ci yaatalaat ñu bari gis na ni mu demee. Mhm. dafa am lu ñu duppee benn quatre axes lañ teg. waaw maanaam ñeenti pàcc. Mhm. yoo xam ne ci huit pôles lañ ko fas yéenee. tas voilà. defaree mhm. dinañ ci ñëw mais boo mayee rek ma wax la. comme ça ok voilà boo jëlee tey li ko waral projet bi Mhm. dix entreprises lañ am tey boo jëlee dix sénégalais. Mhm. daanaka quatre yi dañoo ndóol. waaw Sénégal yooyu noonu dañoo ndóol yoruñu dara mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne wàllum pauvreté moo ko waral Ousmane guy yoo xam ne dañ koy yaatal jële ko wàllum équité wàllum développement durable wàllum engagement africain tout ça ngir Sénégal bu nekk mën a gis sa bopp ci dundin loolu rek mooy mooy sabab bi mhm. maanaam dëkk bi développé li dëkk ci dëkk bi di meññeef bañati di di di jéggaan yi dem fenn Sénégal bu nekk lépp loo xam ni am na ci dëkk bi ngir sa bopp ñu am benn cadre de vie boo xam ni Sénégal yi tukki woon sax dina mën a ñëw di développer ci dëkk parce que mi ngi koy def gënuñu nu exactement mu nekk loo xam ne également loolu moo ko tax a ñu jàpp ko nag actuellement teg projet. Mhm. yàgg na fi comme ni ma ko waxee nekkul xam si mooy mooy exploit bi. nga xam ne dina mën a exploiter son talent son travail réussir fonder une famille devenir un Sénégal pur et dur ba ñu dem fenn di jéggaani leen. très bien euh, Bachir ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne yëkkati nga ko alors Babacar le président de la République def des orientations donc euh, wax na sur euh, les axes euh, ci premier axe bi mi ngi wax la bonne gouvernance et l'engagement africain ci beneen wàll bi mi ngi wax un capital humain de qualité équité et sociale aménagement et développement durable moo nekk ci troisième axe bi ci quatrième axe bi mu wax une économie compétitive dañuy desani ci premier bi bonne gouvernance engagement africain gis nañu tamit euh, les sous-axes yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir alors ban apprentissage tamit moom ngay def euh, ci wàllu boobu. waaw xam nga quand on de bonne gouvernance mhm. loolu dafa nekk lu am solo. waaw ci réew. parce que euh, un pays mal gouverné. Mhm. yoonam bëri na dëkk trop. waa te ña fa a ay tànki neen la ñuy def tamit. yoon nag bu bëree dégg ba pare nga defi tànk neen bàyyi xel jaafa. Mhm. dana métti trop. en 2012 le président Sall dafa définiroon ses cheval de bataille jiital la bonne gouvernance ak yenn critères yu koy accompagner système boobu jeex un nouveau régime ñëwaat en place définiraat les mêmes axes waaye tamit indi si quelques modification est-ce que yaakaar nga ne tey jii ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, régime bi nekk au pouvoir. xam nañu exactement les enjeux et les orientations yi nga xamante ne fa la leen askan wi di xaare en principe normalement. Hmm. parce que gis nga xam nga léeg-léeg ñu naan li copier-coller le PSE wala du ñu mel. waaw gis nga fekkoon ni dañoo bind programme ñu xool PSE amul dara du ñu wutale. Hmm. ñu tiitaange war nañu kawe tiitaange war nañu. ci naka parce que mënuñu am benn régime bu fi jógee beneen régime ñëw. topp ci ginnaawam. Mhm. nga ne ñaari projet wala ñaari référencier yi ñu doon liggéey. waaw mënul am benn similitude. Mhm. d' abord état continuité moom li mu fi sumb. Mhm. am na loo xam ne lii peut-être mënoo nekk nii li si quoi da nga ne lii mu ngi ci yoon yi. loolu da nga koy continuer. li nga xam ne nag jàpp nga ne yow lii moom mënul jëmee Sénégal kanam. comme moom ni mu ñu ko waxoon ak yoonu yokkute. li jëmul Sénégal fenn. loolu nga soppi ko nga indi leneen loo xam ne dina dina dina jëm ci kanam. d'accord parce que lu muy am solo xam nga bu ñu wax bonne gouvernance yaa ngi koy wax léegi. waaw avec le président Macky Sall waxoon nañu ko théoriser nañ ko. avec ce régime aussi théoriser nañ ko. Mhm. ñun ñëpp xam nañ ne ab dëkk dañu ko war a yor ci bonne gouvernance d'accord kon c'est normal ñu dégg ko fee dégg ko fii. Mhm. mais am le défi mooy lan. Mhm. nga fexe loolu ngay wax. waaw di ko théoriser. dans la pratique de tous les jours ñu koy gis. waaw loolu mooy li am solo donc tey jii ñu renforcer li nga xam ne mooy suñuy institution ba ñu am benn dëgërlaay bu am am solo suñu biir réew ñu téye ko ba mu taxaw. Mhm. après ñu door a engagé wu nag su le plan africain. ci foofu da ngay wax ne que état de droit réforme institutionnelle ak la sécurité nationale dafa nekk des facteurs essentiels jëmale ko sur la bonne gouvernance. tout à fait moom la lay wax moo tax. très bien réforme institutionnelle il faut ñu renformer renforcer li nga xam ne mooy suñu institution. d' accord gis nga bu ñu renforcer suñu institution ba ñu am. taxawaay bi ñu war a am. Mhm. conséquence directe mooy état de droit dina am ci réew mi. waaw parce que man jàpp naa ne dañoo am ay euh, institutions yoo xam ne institutions xam ne parfois. Mhm. je ne sais pas faiblesse lay doon ci ñoom wala. parce que imaginez ñu jël benn exemple rek. Mhm. une institution comme la justice mu jël une décision. l'administration ne di ko appliquer. mais loolu loolu nu nu ñu ko mën a tegee cim réew quoi noo noo ko mën a gisee. on se rappelle que li xewoon euh, ak la DGE. benn directeur toog ci bureau la du ko appliquer. du appliquer waaye. mais loolu c'est catastrophique pour moi le régime de Macky Sall. Mhm. wala Macky Sall am na benn côté Sénégal dañ ko war a sant gërëm ko. et que l'institution administrative ne doit pas défier l'institution judiciaire. tout à fait. oui c'est anormal. Mhm. loolu moo tax ma ne la. benn côté dañu war a gërëm Macky Sall parce que dafa am faiblesse yoo xam ne ay failles yoo xam ne. Mhm. dafa tax ñu xam ko ci suñu institution suñu système. d'accord ni ñu ko tëggee globalement dafa bëri failles yoo xamante ni ak son régime génn na. Mhm. léegi nag wax ji mooy gis nga li ñu jot a dund. événement yi nga xam ne jot nañu ko dund. Mhm. peut-être métti na bi ñu koy dund. mais tey jiine ne dafa war a nekk avantage ci ñun pour ñu defar suñu ëllëg. d'accord nu muy nekkee avantage ci pour ñu defar suñu ëllëg mooy. dund nañ ko métti na mais résisté nañ li ci xew xew na ci. ñun ñi nga xam ne tey yàlla def na. Mhm. ñu mucc yum ci ba toog fii tey di ko mën di nettali. Mhm. ana lan lañ ci mën a tirer comme leçon. d'accord lan lañ ci mën a tirer comme leçon fexe ba loolu ëllëg bu mu fi amaat. Mhm. loolu moo tax ma ne la avec le régime de Macky Sall bëri na loo xam ne ay euh, sooxee la woon ci suñu système ci suñu administration. Euh, sunu institution tey jii nii war nañ fa mën a tirer leçon mais nag bu fekkente ne dañ ko dund mu jàll rek ñu ne jàll na. ne bu mu fi amaat. te xooluñu lan moo waraloon mu am ñu duut fa baaraam effacé loolu. Mhm. Mhm. fexe taxaw ci condition situation yoo xamante ni loolu dootu am dina nekk loo xamante ni dund nañ ko mu métti ba pare te duñu amal benn njëriñ ci suñu ëllëg moo tax ma ne la renforcer suñu institution comme ni ñu ko dañu faa dañu ko war a jëmmal. ci mim mhm. réew. état de droit ñu jëmmal ko ci mim réew suñu sécurité ñu téel ko suñu bopp fexe ba am. sunu sécurité bi réew ñu téye ko moom ko ba sunum réew nekk ci sécurité ça avec l'état de très bien parce que dañoo nekk ci réew moo xamante ni. Mhm. parfois da nga fiy dégg des questions insécuritaires yoo xamante ni mën a ko comprendre. exactement léegi nag loolu. Mhm. comme ñoom ni ñu ko waxee ci seen pro euh, seen projet boo demee ba téye ko ba am ko. Mhm. après en ñoom li ñu yàgg prôné mooy des para panafricanistes. c' est normal donc dans le projet ñu ci gis engagement africain. voilà donc après ñu ubbeeku. dans l' Afrique ñu jéem a xool ñun tamit naka la mën a lëkkaloo. unité africaine. voilà waaw unité ñu am jëmm bu dëgër parce que. Mhm. dégg nañ fi nag des organisations sous régionales régionales yu nekk. Mhm. waaye am na taxawaay boo xamante war na leen te mënuñu ko am la ko a rek. Mhm. mooy engagement bi war a am. doon benn gi war a am joxante loxo gi war a am bokk ndey bokk baay. moo amul donc je pense que ne foofu aussi nekk na liggéey boo xamante ni ñu ngi leen ciy xaar bu merci beaucoup euh, Babacar euh, pour les développements.